boroomi kër yu bëri daanaka nelawatuñu ba yàndoor ndax gannaaw courant ndox ak yeneen yokkute gu tar la ñu nemmeeku si dund gi. xëy na suukar la ñu wax huile prix bi mu ngi commencé changé commencé jóg di demaat comme nam nam doone woon. dawal yokku na yokku boo xam ne doo comprendre sax doon demee léegi demeetul noonu. soble rek tey jii lañ may annoncé ni ma yokku na soble na quoi bépp matière boo laal ci commerce bi yokku na. da ngay xëy rek dem marché ñun la yokku na. Euh, sans aucune communication donc loolu lépp ci askan wi lay teguwaat te dañu toll foo xam ni état bi mi ngi def effort yu bari xëy na ci yeneen jumtukaay yi mais lekk gi li nit ñi dundee mu ëpp solo. te foog ñu jàppale ci askan wi parce que moom la ñuy askan wi loolu lay gën a ressentir. askan wi di clients yi nga xam ne ñoo di faral di doxantu si yooyee bërëbu jaayukaay ñoom danaka ñàkk pexe leen fay yóbbu. clients yi da nga leen di yërëm sax parce que boo calculer client bi tey li mu war a jënd foofu mu wàññeeku pour jënd. ay 2 kilos 3 kilos nga bëgga laal ay 10 mille wala 12 mille nangam te duggagoo day métti lool yow mi jaay sax da ngay ba yërëm client yi. yi tamit jàmbaar lañ ah na lool mais dañuy jéngo rek xam nga daan jënd kilo sax boo xoolee léegi ay libre rek gën a libre lay jënd tamit. boo calculer client yi mu jënd ci yow kilo euh, daanaka 1200 koy jëloo ci kilo bi bëgg a jënd ñaari kilo ba ñett day métti ci moom lool. te yow mënoo def dara lu dul négocier ak ñoom rek parce que itam am na prix boo xam ne boo ko jëndee yow boo ko bëggee jaar da perte yow miy jaay. tëj gi ñu tëj frontière bi dox suñu digg ak Mali moom it bokk na si li yokk jafe-jafe yi. lu ci bëree bëri day dem Mali di jóge fii di dem Mali lu jóge foofu ci Mali di ñëw fii quoi kon donc loolu suñu njiitu réew yi war nañ koo xoolaat bu baax a baax. waa CEDEAO war nañ ko xoolaat bu baax a baax quoi parce que day métti ci Mali day métti ci Sénégal ak Sénégal dèjà commencé na souffrance bu métti yenn produits yi rare doo leen gis te donc spéculation fu mu am fu nekk il faut que mu cher il faut que mu naqaree jot quoi franchement parler. Sénégal boo calculé ah, ah, ah, amuñ amuñu kii de ñuy consommé ci Sénégal bariwul de lépp ci yeneen réew yi lay jógee moo tax frontière yi bu tëjee rek Sénégal day métti. dañuy rey par jour de saa yi kenn xamuñu mu toll waaw. fi ni Mali moo ñu ci mën a génnee soit yeneen réew yi. man su ma doon jaay léegi un malien dootuma ñeme parce que xamoo luy xew Mali actuellement ñun ñëpp dañu nekk ci benn suspense boo xam ni suba xamoo luy xew Mali donc man du ma jël sama bagage du ko yóbbu Mali. du ma su ma doon jënd tey jii bagage di ko sobleeg yooyu du ko yóbbu Mali su ma amee client client bu nekk Mali du ma ko nangoo su fayul teew du ma ko jaay donc kon loolu lépp day bloqué commerce bi dee bloqué tamit transaction yi nga xam ñu ngi doon def ak yenn Mali ay Mali ak yenn pays yeeg yooyu vraiment lu lu jafe-jafe yu rëy lañu ci am actuellement nii. nguur gi fexe itam ba gën a dëgëral taxawaayam naam am na sax ay jéego yum si amal la commerçant yi jàpp ni am na lu des. comme yokk mënul ñàkk ñu toogaat yi. waxtaanat ak ñoom xool ban solution la ñuy jël loo xamante ni kenn du gaañu quoi parce que suñ fixé les grossistes yenn prix yi respecté wuñ ko ñun mënuñoo poñe kenn ni ko tey jii nga jaañu prix bi état bi wax. foog mu gën a def ay effort. waaw nit ñi bu yokk nit ñi yëg ko mu ñu waxtaane ko ba ñu teg ko ci benn place au moins du mën a bett kenn fekk yokk mënta ñàkk parce que àdduna bi ñëpp xam nu mu nu mu demee actuellement ni turbulence yeeg yooyu mais nag euh, nañu def effort. ba mën a téye les denrées de grande consommation ñu mën a téye bi. am na benn note de service bu ñu jot boo xamante ni waa service régional du commerce ñoo ko defar mais loolu la commerçant yi mënul respecté grossistes yu mag yi te bu ko grossistes yu mag yi respecté wul ñun boutiques yi mënuñu ko respecté quoi donc day xala metti ñu ñëw ñu ñëw di ñu jàpp te au lieu que mbir mi fa mu doore ñoom xam nañ ko. parce que xam nañu grossiste bi moo la jaay. état bi yenn saa yi du ci man dara parce que booy maa ngi dégg naa fret yokk. soo demee ba daan jënd ba daan jënd juróom ci àll bi léegi ñaar ñaar ñaar lañ la mën a jaay te fret bi tamit bato bi taxaw war ko yóbbu bu feesul du dem te obligé nga yokk transport fret beeg yooyu yëpp bu ñëwee day tegu ci sa kaw te fii taxi yi fii conteneur yi tamit li nga daan fay dafa gën a chair donc kon loolu ki ko jënd digul bénéfice faw mu teg ko ci kaw askan wi. waral muy soñu moom mi yëngu si jaayum soble nguur gi mu waajal campagne bi ñu jëm. daaw problème yi fa amoon ñëpp xam nañ ko. Euh, ren euh, gisaguma ko lenn loo xam teg nañ ko pour mu mën ko saafara. waaw gisaguma benn acte bu ñu teg pour mën na saafara loolu ci ay wax rek lañ toll donc li ma doon li amoon daaw maa ngi koy séntuwaat ren. su amul rek daf may bett mais c'est fort probable li amoon daaw amaat ren parce que surproduction bi ñu amoon daaw koy amaat ren parce que Sénégal léegi euh, terre emblavée yi dafa gën a yokk bien vrai que am nañu problème engrais ci àll beeg yooyu yëpp mais il faut soble bari day am. waaw ca bu amee nag ca amul exportation yeneen marché extérieur yi amul conservation amul transformation amul dara loolu lépp Sénégal mën ko consommer ci benn laps de temps donc kon forcément day yuuxu dañuy baykat yi dañuy yuuxu ñi koy liggéey di yuuxu ku nekk di yuuxu ci benn côté parce que état bi tamit moo war a jël loolu lépp accompagner leen ñu mën a dem ci yeneen yeneen yeneen fànn yeneen moyen yoo xam ne mën na tax produit bi du yàqu sur le terrain ñi ngi wax rek mais acte posé gu ñu benn acte daal maanaam pour mën leen dimbali ñi nga xam ñi ngi bay soble bi pomme de terre bi ak ñi nga xam ñi ngi ci nga ci di ko jaay. suukar diw ceeb farine ak yeneen daanaka lépp a yokku si njëkk borom kër yu bari ne si njàqare rawatina góorgóorlu mi xëy di taaba taaba ngir am lu mu dundee